Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info nit ku nekk na gëm yàlla tam dëgg ci moom alxuraan day wax ne wa fi anfusikum afalaa tubsiruun ku nekk na moytu lu bare bare bare li la yàqal mi nga ànd yow tout le temps la yàqal mi nga ànd yow diisoo yu xokkante yeeg xëy ñaaw yooyu yëpp dara baaxu ci dañuy bala ñu mën a kontaan ak li ñuy def nañ ko baax ku nekk na xos bopp Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info